suñu riyaat ah. yow mi nga xam ne sa waajur wa tedd wa hmm. euh, bi nga xamee ne ku baax ki eh, war naa dem Tuubaa hmm. moom la ñu woolu mu indi otoom def ko ci waaw nga wax ne nag sëñ Cheikh Mbacke ñëw na fi waaw sëñ Cheikh Mbacke jaar moom ñu ñëw jaareen fa jaarul fii waaw na fii waaw fii nag mooy barab bi nga xam ne. bi sa bi sa bi sa bi oto bi dellusee. sa baay dafa wax ne ndegam ku tedd ki. moo ci yéegoon. keneen dootu ci yéeg. fii la suul oto bi nag. fii sëriñ Cheikh Bintu toog nii. comme sëñ bi kon na toog. man waaw. bu ma génnee àdduna nangul kenn du ko yóbbu ku dul man. waaw oto bi taatu doomu aadama du ko si tegu. si la ñëw gas fii boobu fii amul tabax boobu baraako denk la woon. waaw. ñu daal koy suul fii. ñu daal di suul fii oto bi. est-ce que ñu ñëw fi nag tey jii nga defoon na suutara ñu ñëw fii di ko di ci barkeelu. alhamdulilah rabbil alamin waaw fii moom moom sa euh, néeg la boo xam ne bi ñu ko tabaxee moom kenn du kenn dëkk fi moom. da koo def nii rek ngir te nga ngir tarale ko waaw waaw. dafa euh, euh, ku fi ñëw di fi siyaare di bàyyi fi xaalis. waaw. dafa ne sëñ Tuuba képp kuy murit. Hmm. am nga ci woon. Mhm. jarul nga ñëw. booy si jaare nag nga bay wàcc fi xaalis. waaw loolu boo ko defee boo ko nangoo dañ leen di da ngay jaay sa wëllëre. ndeysaan sa diggante ak Serigne Touba. est-ce que daawul nangu. mu nekkee àdduna daawul nangu ko fi bay dara avant muy dem dafa battali ne bu fi kenn si yaare ba wàcc fi xaalis yi nangu ko. Mhm. loolu moom ci ndigalam la. ndeysaan kon daal moom dañuy siyaare. 娘哎。